sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim wal tukammil xaq ji wa xilmi wa sax yi warfaxil yowma kullaha ya muhin barke borom tuuba ñoo ngi leen yi nuyu te di leen siyaare tey rafetlu jataay bi jataayu waajtaayu magal yi e, di leen ñaanal yàlla sunu boroom taxawaay bi ngeen ci am yàlla na leen sëriñ tuuba fayal boppam Euh, te defal leen liggéey ni mébét lépp ak li tax ngeen koy def barke Seexul Xadim ginnaaw bu nu ñaanalee sëñ Montaxa mu yàgg fii lool te ànd ak wér ak njabootuk sëñ Tubaa gi euh, njabootuk sëriñ Tubaa gi yépp góor ak jigéen mag ak ndaw tey ñaan yàlla suñ boroom li nga xam ne moom lañu nekk di ko waajal ñu dugg ci ci bisimilahi rahmaani rahim àggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin ban def ko niñ ko bëggee li taxoon sëñ bi di ñu ko defloo tamit ñu am ci ngërëmam barke Seexul Xaddim kii nag day jàmbaar joo xam ne waxtaane ay mbiram dafay lu am solo ndax mooy jëwriñu yonent bi ci kaw suuf moom la yonent bi liggéeyloo kon boo ma laajee ni ma kañ la yoonu murit sosu danaa ci kontaan bu baax a baax yoonu murit mi ngi sosoo Mbàkke Kajoor ci atum 1880 maanaam Maamor Anta Sali mi ngi fi jóge xaama sasin xaama sasin la fi jóge maanaam Sëriñ Tuubaa xaama assasine ci la sos atum atum xaama assasine ci la sos yoonu marit kon bi maam Seex bi Maamor Anta jóge génne àdduna ba mu mat at ca déwén ca ca koor ga ci la Sëriñ Tuubaa sos yoonu murit mu tombe koor booba sax dañoo wax ni sëriñ bi dafa doon jàngale jamono yooyu mi ngi doon jàngale téere bu ñuy wax alfiya ibnu malik alfiya ibnu malik la doon jàngale jamono yooyu ba yonent bi wax yu ko ndax daana ko wax yu lu jiitu Mamor Anta di génn àdduna daana ko wax yu di ñëw di wax ak moom ngir mu am yoon woo xam ne da koy taxawal waaye ay teg tegginam mayu ko woon muy def lenn ci nekku Mamour Anta Sali waaye nag ginnaaw bi fi Mamour Anta Sali jógee xaama sasin ci xaama assasine la Sëriñ Tuba sos yoonu murit waaw sos na tarixati al imaanu bi tawhid mi ngi ko sos nag al imaanu bi tawhid wal islaam bil fiqhi wal ihsaan bi tasawufi mi ngi ko sos ci imaan islaam ihsaan ju dëgër maanaam ci loolu ci la Sëriñ Tuba sose yoonu murit ci at moomu 1880 ca Mbacke Kajoor yonent bi tamit moo ko jox ndigalul mu sos ko ba noppi wax ko aw yoon wu mi rab bi asxaab asxaabaka bil himma walaatu walaatu rabbi walaatu wala walaatu dar rabbi rabbi asxaabaka bil himma walaatu rabbihim bi dar si faqat dafa wax ne leen rabbi na nga yar asxaabaka say àndandoo bil himma ci yitte wala wala turabbihim bu leen yar bi dar si faqat bu leen yar ci jàng kese waaye na nga leen yar ci yitte ju ñu mën a yittewoo jëm ci yàlla sunu borom maanaam yittewoo yàlla nag moo taxoon yitte jooju rabbi asxaabaka bil himma na nga lay yar saw ñoñ saw àndandoo ci yitte yàlla yitte ju leen tax a bëgg yàlla yitte ju leen tax a jublu yàlla wala turabbihim bi si faqat bu leen yar ci jàng kase am na nag ñoo xam ne wala turabbihim bi dar si foofu la ñu yem waaye faqat gi duñ ko ci boole kon ñaari riwaay la yoo xam ne am na xam ne dañuy yàgg ca faqat ga am ñoo xam ne dañuy wala turabbihim bi darsi faqat fa la ñuy yem kon loolu mooy cosaanul cos gi ci ndigalul yonente bi hadis boobu tamit yonente bi moo ko wax ne ko na nga yar ginnaaw boo sosee yoon wi ba noppi nanga yar ñi ci ànd ak yow ñëpp ci yitte ju kawe jëm ci yàlla waaye bu leen yar ci jàng képp na nga leen yar ci yittewoo gu nu yittewoo yàlla suñu borom. yoonu murit wax nañ ni bari na ay riwaaya yu yu yu wuute ay nettali waaye ci liñ jàpp ñun sëñ aadama Guèye moo njëkk jokk ci sëriñ Touba. maanaam ki njëkk jébbalu ci sëriñ Touba sëñ Adama Gueye am nañu bind loolu loolu daan lañ jàpp ci ki njëkk jébbalu ci sëriñ Touba sëñ Adama Gueye noonu lañ toppantee mag ñi euh, kenn par kenn par kenn ndax loolu li tax du neexal leeral mooy ku ci nekk am na njëbbaluk saahir gu mu am am njëbbaluk baatin gu mu am njëbbalu saahir gi mooy li nit ñi xam njëbbaluk baatin gi mooy gisee ci ay xol yoo xam ne dañu yàgg gisante yàgg bëggante yàgg soppante te loola histoire mën na koo bañ a xam ndax am na ñoo xam ne fa ñuy gisee ci wàllum baatin ak ba ñu àndee day jiitu gisub saahir bi waaw looloo waral nag euh, ci li ñu xam téere yi bind ko rek am nañu bind ni sëñ Adama Gueye moo njëkk a jébbalu ci sëriñ Touba. mag ñi moom bari nañ mag ñi mag ñi bari nañ mooy ñi nga xam te yàgg leen a xam ñu fes ci yoonu murid ci tuddee jàmbaar yu mel ne Euh, maam Cheikh Ibrahima Fall ci keppaaru Serigne Touba la nekkoon mag ñëpp tey maam Cheikh Anta borom Darul Moxti sëñ Modou Xabaan sëñ Dame Abdourahmane lu bari na ay mag yu ànd na ñoom comme noonu noonu ñu ko lime ñoo xam ne sëriñ bi daf leen a yaroon ci boppam jàngal leen doxin wu ñu bëgg képp ko taxaw moom di ko doxe ci ay doomam yar ci ay seexam yar ci ay dongaam te mooy fexe na ba ku ci nekk sos nga ay dëkk bënn ay teen tabax ay jàkka defar ay nit ku ci nekk la ko dale ci sëñ Moodu Moustapha dale ko ci maam seex Ibrahima Fall bu ma ko waxee mooy tamit moom ni mu meloon ci sëñ Tuubaa ñëpp xam nañ ko loola moom ku ci ñëw danga ko fekk maanaam defar ay dëkk tarbiya ay nit tabax ay jàkk defar ay bënn ay teen dimbali nit ñi kon loolu mooy maanaam li sëñ Tuubaa yare woon ak njabootam maanaam sanc ay dëkk bënn ay teen tabax ay jàkk maanaam ba noppi nag yarub taqoo maanaam yarub taqoo mooy defar goo xam ne da ngay ki ngay defar da ngay moom mën nañ ci joxe ay misaal ku mel ne sëñ Saaliw nga xam ne yàlla defaloon na ko ci loolu loo xam ne tamit ñëpp da ngañ seen bët mooy yarub taqoo mooy defar ay nit yoo xam ne ba jamono naqaree defaree ay nit nga defaroon nit ñooñu sëñ Touba yàlla da ko bindee noo xam ne euh, kuy wut lu baax da ko bëgg am na ñoo xam ne yàlla gindi na leen nag ñu teel koo xam am na ñoo xam ne euh, teeluñu koo xam maanaam ci ni ma ko mën a misaale mooy tey jii nii ñuy doxee ci àdduna rek ràññat la ñu baax ak ñi jëm feneen yombul waaye ku yàlla may basiratul xal bi da mën a xàmme ñi baax ak ñi nga xamante si nii tamit yàlla dogal na ñu ñu ñu ñu jëm ci weneen yoon waaye sëñ Tuubaa comme ni ko yàlla bindee woon nga xam ne moom yitteem jëpp ci yàlla la ko jëmale woon ay waxam ay mbindam ay jëfam liggéeyam bu réy boobu yëpp ñu ngi ko jëmale woon ci yàlla ak xidmal rasulullahi sallallahu alayhi wa loolee nag dafa dem ba jeexi dafa tasir ab jeexital ci xolub nit ñi nga xam ne lu baax la ñu sàkku ci àdduna maanaam nga xam ne ku ko gis wala nga dégg ko foo ko mën a dégg lu mu sori sori danga fexe ba xam jàmbar jooju fan la nekk nga koy xeeñtu ndax ci histoire Mbàkke Kajoor boobu damay bañ a xóotal waaye comme noonu rek la demee ndax Seera Fall bi muy dem ci sëriñ bi euh, dama xamatul ni ko téere ba waxee tëdd na bis guddi def xaar maanaam yàlla xamal ko ni ko sëriñ Tuubaa mi ngi ci barab sàngam mu xam ne maanaam sëñ Tuubaa moomu la war a seet ba gis ko waaw maanaam mu seet ko ba gis ko daal di jël mbiram jox ko xam na ni ko ni ko waykat ba waxee de waaw ci lay waxe ne gis na fa Seex Adama Gueye ak ñeneen ak euh, kilifa yu baree bari ca Mbàkke Kajoor Matar Touré nga yeni jur yenn ko jëm Mbàkke Kajoor kon yooyu yëpp ci histoire boobu ci la bokk te ñooñu foofu ñu nekkoon ci millier boobu biñ fa demee ba yegg foofu rek am na loolu leen gindi di leen wax am na leer gu nekk fii koo xam ne li ngeen sàkku ci foofu la nekk ci lañ dem ba gis ni gis nañ eh, ci la waxe ni maanaam ci la gis Sëriñ Tuubaa mu xam ne gis na ko ko moom mu daal di fab mbiram joxe waaw moom demee ba àgg ci ci ci ci foofa ci Sëriñ Tuubaa rek ba gis ni am na leer gu nekk fii te leer gi mu doon seet mi ngi fii ba mu àggee ci sëriñ bi ci la xam ne kii moom la war a àndal liggéey ma daal di ma daal sànni mbiram ma daal di jël mbiram jox ko ñu ñu ñu ànd kon nit ñu baax ñu noonu lañu doon ànde ak ñi nga xam ne nit ñu baax lañ te nit ku baax da koy xeeñtu ba ba xam ba xam ko soo ko mën a ànd ak moom. waaw sëñ Tuubaa moom naka jekk mooy dafa am lu loo xam ne dafa mat di bàyyi xel bu baax ndax wax naa ko sànq yonente bi danoon ko bu leen bu leen bu leen yar ci jàng kase kase wala tu wala tu rabbihim bi darsi bi darsi bu leen yar ci jàng kase kase waaye na nga leen yar ci tarbiya tarbiya dafa am lu muy def ci nit ndax tarbiya yar mooy yar taqoo di gindi nit ki maanaam tarbiya ko tasfiya ko tarxiya ko taalim ko maanaam mooy defar nit rabba wa raqa kulla man bi bihi saaka man maanaam da ngay da ngay da yar nit ki taqoog moom di ko wax nii nga war a def li nga war a bàyyi xam comme ñun ñi nga xam ne neeñ baaxoo xam nga xam ne ñun daanaka duñ tarbiyewu te tarbiye dafa bokk ci sarti murit sa maanaam tarbiye dafa bokk ci sarti murit xam nga sarti murit juróom-ñett la ci ne ma la ko misaale murit ñeenti araf la boo jëlee miim gi mooy muñ raa gi mooy rafet njortu yaa gi mooy yaatu del gi mooy dégg ndigal am na ñoo xam ne ay murit kase lañ mu des saadix am na ñoo xam ne murit lañ waaye am na ñoo xam ne murit saadix lañ saadix boo jëlee saad gi mooy sabrun alif gi mooy imtisaalul awaamir topp ndigalul sëñ bi bàyyee tereem dell gi mooy dawaamu xale yi dawaamu xale yi mooy tarbiya maanaam nit ki du caagi day jébbalu ci nit rek dem faw da ngay toog ci ki la war a defar mu lay gis nga koy gis di jëf ay jëf mu lay critiqué loolu lañ tuddee tarbiya te loolu looloo waraloon sëñ Tuubaa defoon ay daara am ñu fa nekk mu leen ni tarbiya di leen tarxiya di leen tasfiya di leen taalim di leen xamal waaw loolu nag mënutoon a ñàkk ci ñi taqoo woon ak sëriñ Tuubaa ñam jublu woon defar noonu la doon leen kon mag ñi àndoon ak Serigne Touba dafa leen a yar ci jikkoom yar leen ci xam-xam yar leen ci ci ci ci ci jàngale ak jàng kon ci loolu la Serigne Touba nekkoon ak mag ñi kon képp koo xam ne dangay ngay da ngay topp sëriñ tubaa ci loolu ci nga war a nekk. murit baat bi li mu tekki mooy ku namm dara ku namm dara maanaam koo dégg ñu ni namm na dara mooy am murit xam nga murit murit daa am maridandoo am murit am. muraad am ñeent yooyu murid mooy li ma lim léegi képp koo xam ne ñeenti araf yii boo xoolee sa bopp gis nga ko ci sa bopp xamal ne murid nga maanaam muy miim raa yaa deel maanaam mooy koo xam ne day muñ boo xoolee xooleen doo muñ xamal ni dese nga tuuti doon murid boo refetul njort dese nga tuuti doon murid boo yaatuwut dese nga tuuti doon murid boo déggul ndigal muy deel gi dese nga tuuti doon murid léegi nag mu des ma riirandoo ma ndoom mooy koo xam ne xamul lu xew maanaam daanaka dafay topp mbir yi di daw rek mooy li xew ci jamono ji nga xam ne jëmuñu xamuñu dëgg dëgg muridisme xamuñu jëmmi jëmmi murid parce que murid gi am na ci ñu ci am maanaam licence am ñoo xam ne entrée en sixième ci am ci misaal la la koy joxe am ñoo xam ne BFM am ñoo xam ne baccalauréat am ñoo xam ne master am ñoo xam ne maîtrise maanaam la ko mën a wax dañ ci am ay kayit total nga xam ne dañ ciy juddoo ñu yar leen ci ñu xam ko am ñoo xam ne nag ñu ci bëree bari xamuñu jëmmi système bi maanaam riir mi rek moo leen ci ñor ci lañ duggee noonu mais xamuñu tarbiya xamuñu yar bi xamuñu sax daanaka buñ jébaloo ci sëriñ ba lañu ko gisati at baat lay doon yooyu tamit mooy différent bi am ci diggante maanaam murit ak mariirandoo marit mooy ki nga xam ne moom daanaka mbiram euh, mën naa jébbal waaye ku ko digal du def mooy marit dafa tepparle maanaam ku ko ku ko ku ko dafa fettarle lu maanaam mën naa jébbalu waaye daanaka sàmmantewut ak sart yoonu murit sàmmantewut ak li ko ab sëriñam digal ma kooku mooy murit maanaam daanaka ci iblis rek ci ci mbiri iblis la nekk waaye dëgg dëgg murit mooy li araf yi ma wax léegi muraad nag mooy ki nga xam ne moom passé na étape ñetti étape yooyu murit marit marirandoo léegi mi ngi ci muraad muraad mooy ki nag ki dugg nag ci cadre nag bëgg a defaru bëgg yéegi ci yàlla bëgg am yoon woo xam ne da bëgg a jaar ngir àgg ci yàlla suñu borom di xeeñtu yàlla suñu borom nga xam ne tën a ñett yooyu ma wax yépp weesu na garaatu murit weesu na garaatu marirando weesu na garaatu marit léegi mi ngi ci garaatu muraat maanaam mooy yéeg bëgg yéeg ci yàlla suñu borom gisatul dara lu àgg ci yàlla suñu borom léegi nag ñeent yooyu nag boo ko amee ba noppi dafa des li ñu tuddee murit saadix saadix day lu am solo loo xam ne nit ki mën naa nekk murit ba noppi du amagun bu garaatub saadix te mooy mooy mooy asidqu fi mahabati seyx maanaam dangay bëgg sëb sëriñ ba mel ne maam Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne daanaka ni mu meloon ñàkkoon sago gi mu ñàkk sago ci moom moom loolu ñëpp xamoon nañ ko ñàkk sago gi sago ci moom euh, maanaam alif gi mooy imtisalul awamir jëfe ndigal bàyyi tere maanaam murid bi du caaginu day jébbalu ci sëñ bi rek di soit ay ndigal yu ko sëriñ bi jox bu diisee mu bañ koo def bu yombee mu def ko déedéet imtisaalul awaamir dafa bokk ci sare sarti murit dangay ngay topp ndigal kay bàyyi tere ndigal lu neex ak lu naqari yépp bu la ko sëñ bi diglee da nga koy def léegi del gi mooy dawaa mu mooy da ngay sax ci sëriñ bi pour mu mën laa defar du caagin da ngay jébbalu rek dem déedéet nit lu muy sàkku ci àdduna bëgg koo am faaw day toog ci milieu bi maanaam fi mu koy sàkkoo tey jii ki la war a defar bu la gisul du la mën a defar parce que yow téléphone nga koy dégg at ba at nga koy gis màggal ñëwee nga ñëw toog ci moom jeex na jeex na looloo réeral xale yu bare bari moo te se maam maam maam maam Saliou sëñ Saliou yàlla mayoon ko pédagogie boo xam ne ci wàllu yar loola lu lu lu yéeme woon la ak xososiyé la ko ko sëñ Tuubaa defaloon ndax xool lim defar ci ay nit yu mokkal alxuraan euh, mokkal ay xasida ay xale mu daan leen yar ci benn milieu yu ñu nekk fa mu am ci ay daaray daaray ay junni junni nekk fa mu defar leen am nga bokkut ak léegi li xew ci jamono yi nga xam ne xale boo gis tey jii mi ngi yéeg ci sereeti mbaam yi sereeti fas yi maanaam yor yoonu boppam amul kenn ku ko tërbiya lu ko neex def yar boobu la ñu war a indiwaat te yar boobu mooy tërbiya delloowaat xale yi ci daara yi pour ñu tërbiya leen pour ñu yar leen parce que yar taqoo maanaam ki nga yar da nga koy gis soo ko mën a yar parce que rek moo ko may li mu am ndax sañ Tuubaa gis nga gaa yi fi nekkoon yëpp rek xasan ak ñi doon tagg yonente bi yëpp kaabun wa hassan wal busayri xadbara wa kulluhum chiruhum nuurun wa asraaru ñooñu dañ daan tagg yonente bi bëggoon yonente bi xiirun ci moom waaye sëñ tubaa tey na def na maanaam sëñ tubaa wax na ko maanaam nee na euh, jaawastu naas jaawastu naas moom ñëpp ci lañu dugg jéggi naa nit ñi doomu aadama yëpp seen xalaat ak seen i mbind ak lu mu mën di doon naa ko maa ngi ci jaawastu naas wa maa fi ay jaawastu naas seeni xalaat ak li nekk seeni loxo ilaa rabbi naas jégg na leen ba àgg ci yàlla suñu borom nee na bi ma àggee ci yàlla ataani nafhu naasi wa kafaani dura naas bi ma àggee ci yàlla la ma jox nag mbooleem njariñ yi te fegal ma mbooleem luy lor maanaam étape boobu sëñ Tuubaa tolloon bi mu foofu bi mu yeggee ci étape boobu ci la rawe képp koo xam ne jubluwoon nga yonte bi ngir liggéeyal ko maam Cheikh Ibrahima Fall noonu la meloon ci sëñ Tuubaa ñëpp a baax ñëpp topp sëñ tubaa ñëpp ko liggéeyal waaye yàlla ko jagaleel ak ràññeeku ci biir liggéeyal sëñ tubaa bi ak jagleel ndax mission bi mu doon dox maanaam loolu leneen la maanaam ci sëñ tubaa ci bëgg gi ci xir gi ndax tey Seera Fall bari na système bu yoonu murid di doxe système Seera Fall la ndax jàng ngeen ba tàyyi lu ci bare bari diine andi woon na ko bu yàgg waaye Seera moo ko def ci xol yi ngir ñu koy pratiquer bari na lu xew nii tey Cheikh Fall la ko njëkk a def koo ko deful mu mu mu mbéj la wala mu mbëkk la ne la nii lañ ko war a defee nii la ñu toppee sëñ bi. warmal sëñ bi lool waggar ko sëñ mën nga ko mën ngaa jébbalu ci moom yëpp waaye waggar gi mooy des ndax koo xam ne bu la sëriñ mosaana woo da ngay fëlañ ba àgg ci moom doo dox di correcté di ñëw ci moom boo ñëwee doo toog di ko xool yarin wu yarin wu jéggi dayoo woowu moom la nit ñi amutoon. système boobu la nit ñi amutoon donc doon ko doxee ak tubaa Touba bu ko sëñ bi mosaana woo képp wala mu laaj ko ne ko dara am na musta gàntu sëñ bi bu dara bu nekk dara am na sëñ Bamba warta kenn ñu ko dé mu nee na déedéeti sëñ déedéeti sëñ Bamba kenn waru ko dégg xam nga loolu ab yarin la woo xam ne leneen la waaw kenn ku ci nekk nag ci système ba nga doon tërbiyaa sëñ Touba euh, yeneen yeneen système la mais Serigne dafa amoon système bu mu doon tërbiyaa sëñ Touba bu mu nekkoon spécial jëmmi yoonu murit dëgg-dëgg ku ko xam maanaam nga gëstu système bi sëñ soo sose yoon wi ak ci lim doon dox xam nga tey ni ma la ko mën a misaale loolu suñu tariqat alimaanu bi tawhid ci tawhid wal islam bil fiqi wal insaan bi tasawuf gaa yi dañ ne sëñ Tuubaa lañ gëm sëñ Tuubaa lañ yaakaar sëñ Tuubaa min gëm mokkaloon na alxuraan sanc nay dëkk bënd nay téere bind nay téere bënd na jë maanaam sanc nay dëkk bënd nay teen bind na ay téere defar na ay nit yu nit ñi gis wala kenn du ko werante nga jël taawam bi sëñ Modou Moustapha mokkal alxuraan bind ay téere sanc ay dëkk bënn ay teen mokkal alxuraan defar ay nit loolu moom tey jii kenn du wedd loolu nga jël sañ Fallou noonu sëñ Baara noonu sëñ Bassirou noonu sëñ Abdoulaat noonu ku ci nekk bind nay téere sañc dëkk bënn ay teen tabax ay jàkk defar ay nit yu nit ñi gis yoo xam ne duñ ko làmbatu waaye léegi yow mi nga xam ne da nga ne da ngay roy sëñ Touba léegi ci système ban nga loo royee sëñ Touba xanaa ci jëmmi sol ay yére xaxaloo tàccu tàngal ay café kase ci nga toppee Sëñ Tuubaa waaye yow gisaguñ fi jumaa joo xam ne yaa ko defaral sa bopp sanc ko ab dëkk defaroo ko kenn ci loolu ci lañu ñu royee Sëriñ Tuubaa maanaam fexe ba fi Sëñ Tuubaa tegoon tànkam nga teg fi tànkam lim bëggoon nga bëgg ko lim bëggoon nga bëgg ko mooy diine rek la Sëñ Tuubaa bëggoon te Sëñ Tuubaa waxoon na ni teeloon na avertiser ndaw ñi ni leen na ngeen jàngi xam-xam maanaam ndax xam-xam ku ko amut yaa ayyuha subbaanu in xiftum xajal fa xaddimoo taaluman alal amal maanaam bu ngeen ragalee gàcce ci jamono yi ñu jëm nangeen jiital xam-xam bu ngeen ko jiitalut mbir mu ngeen dugg dangeen ngeen ciy mujj réer xam-xam boobu nag mooy li manque sinis bu baree baree bari boo xam ne tey daw nañu riir jëm ci yoonu mën boo waxee ne sëñ bi rek a baax te sëñ bi moom dafa xaw a dafa yitteeloon xam-xam lool bind ci ay téere yoo xam ne lim bind sept neuf tonnes cinq cent la Sëriñ Tuubaa bind lii mu tagg ci yonente bi li mu bind ci njëggalul nit ñi li mu jëme ko ci yàlla ak cant lii mu jël ko mu des ci géej gi li mu jox ko jinne yi lii malaaka yi yor ko lii nit ñi nit ñi jot ci kon kooku yitte bi mu amoon ci alxuraan yitte bu foor la yitte bu foor a foor la moo tax nit ki danga war a fexe ba am xam-xam maanaam ndax xam-xam mooy tax nit ki diine mën a dëgër mab nii maanaam nit ki dafa war a am mabniya ala ilmi sahi wal adabul mardiya da nga war a am xam-xam bu wér boo mën a sukkandiku ba mën a pratiquer sa fardul hayni ndax fardul hayni mooy li nit kii di defal boppam li nga xam ne kenn du ko defal xam nga dafa am ñaari mbir yu nit ñuy jaawale mooy fardul kifaay ak fardul hayni fardul hayni mooy nit ki la concerné mel nu moom képp képp moo koy def boo bëggee woor yaay waroo sa bopp sa ndey du la waroo sa baay du la waroo sa sëriñ du la waroo julli gi yaa koy defal sa bopp dem màkk yaa ko defal sa bopp dafa am loo xam ne jëf ji nit ki la concerné concerné wul ab sëriñam concerné wul kii concerné loolu na mooy fardulaay te fardulaay ne yooyu li ko mën a ko couvrir mooy xam-xam ndax boo yàqee julli gi danga war a xam niñ koy réparé su fekkee koor gi la nga xam niñ koy réparé xam mboolem okkum sariya yi yëpp àttee sariya yi jaay ak jënd lan la ci yàlla wax woor lan la ci suñu borom wax bu julli gi yàqoo baax de salaama xabla salaam lan la ci te loolu mabni ala ilmi sahi wal adabul mardi xam-xam bu wér moo ko mën a am te loolu mooy tax nit ki am liñ naan tuddee taskiyatu nafsi wa xal xalbi maanaam am liñ tuddee maanaam libre ci boppam euh, sellu xol ak sellu maanaam jëmmam yar ba kanam ba nga xamante si nii fi mu bëgg yegg dana fa dana fa yegg ba ak room mën a am leer leer googu nag ci la ci la yàlla defee ci moom loo xam ne ci lay mën a texee ëllëg waaye bu fekkee nit ki nii yaram wi la gën a fonk ci jëmmi am te ruu gi mooy li yàlla soxla ndax bu nit ki faatoo day delluwaat ci malul axlaa ba mu nekkoon waaye jëmmi yaram bi moom matière la machine la buy couvrir nit ki rek pour mu mën a ak dundam mën a ñoŋ waaye taxutu jóg yàlla suñu borom yàlla li ko tax a jóg tërbiye li ko tax a jóg mooy roogu nekk ci al insaaniya roog gi nekk ci nit looloo ko tax a jóg te googu li koy feebulal mooy ñàkk jaamu yàlla kon nit ki sudul jaamu yàlla daanaka moog bàyyi ma yi sumar da dinaaw asfala saafiliin day dem ba nuroog bàyyi ma yi ci ay jëf moo tax nit ki dafa war a fexe ba yeewu am xam-xam fexe ba xam-xam bu ma koy jëfee fexe ba di sarse ak room ci leer jàng alxuraan jàng xasida salaatu ala bi wérd sell baña tooñ bañ lekk bañ a tooñ bañ bañ a lekk lu araam te ñoŋal sa sa diine ci lu baax sart yi la yàlla suñu borom sant tamit nga nga di ko def loolu mooy étape bi nga xam ne mboolem kuy ku ku nam bootu ci ginnaw Serigne Touba lii mooy moom mooy saw saw saw saw yoon. Sëñ Touba ñëpp moo leen yar moo yari seexam moo yari doomam waaye nag forme kilifa dafa am nu ñu daan doxale ñoom euh, sa maanaam sëriñ bi ñu ci bari moo leen dalal ci loxol boppam jox leen nit mu yeggale seenu njàng. maanaam loolu bari na waaye forme bi nga xam ne moom la kilifa yi baaxoo woon mooy def ci nit li ngay def ci moom ba noppi wóolu nit ay jikkoom fab ko dénk ko ko loolu ci la yoonu murid di mos a doxee waaye sëñ Touba ay seexam moo leen yar ay doomam moo leen yar jikko yi nekkoon ci ñoom moo ko ci def bu dee ay seexam moo leen yaral boppam ba wóolu leen toftal leen mbooloo sancal leen ay dëkk bu dee ay doomam tamit li nekk ci ñoom lépp sëriñ Touba moo ko ci def waaye nag demoon na ba àgg foo xam ne xatoon na xataay goo xam ne lu ci baree bari gis na ci njaboot gi ñoo xam ne si jikko yu ñooña doy na leen sëñ Tuubaa fab fab fab ñooña teg ci seeni loxo ñu wëyal loola waaw waaw loola mooy maam Thierno xam nga ni mën naa ci jël ku mel ne maam Thierno man ci jël ku mel ne sëñ Daam Abdourahman Lo ñi nga xam ne bu dee ci wàllu maanaam xam-xam bi eh, ñu ci baree bari moo leen jàngal moo leen jàngal xam-xam waaye nag sëñ bi leen dalal waaye rafetlu si jikko yi ñooña moo taxoon ñu dem ba jox leen ñooñu ku mel ne maam Thierno tey bi sëriñ bi dem ci géej gi euh, sëñ Modou Moustapha sëñ Baara sëñ Fallu noonu mu leen dénki woon maam Thierno nga xam ne da ñii dénk naa euh, la ci xew lépp xam nga euh, ginnaaw bi xam nga ko noonu la sëñ bi daan def maanaam da daan taqoog nit ki yar ko ci jikkoom waaye bu gisee koo xam ne jikkoom doy na ko mu fab ñooñu jox jox ko. gis nga nit da ngay am loo bëgg doomu aadama su la dara yëkkatee mbirum yowmal xiyaam mbirum bàmmeel mbil forme ruu dafa am comportement bu ko nit ki war a couvrir maanaam loolu lu exceptionnel la loo xam ne nit ñi dañu war di di ci waxtaan ak nit ñi ñu xam ne affaire bàmmeel affaire wéet la maanaam lu nekk ci bàmmeel loolu lu wéet la nit ki moo fay nekk mel ni moom ay jëfam moom lay concerné mu xam ne bu baaxee boppam la koy def bu bonee boppam la koy def loolu tamit nit ki da ko war a xamal boppam avant tout waaye nag sëñ Tuubaa moom bind na ba fi comme ni ko suñ borom addis ba ni mu ko waxee maa xamul kan moo ko waxat ban téere an naasu fi dunya farixaani saqiyun wa sahid yàlla nag bu sàkkee nit ñi ba noppi kenn ku ci nekk dalay lay bàyyi ci sa ci sa soi bopp tey nit ay nit a ngi fi di def lu bon yàlla gis leen ay nit di fi nekk def lu baax yàlla gis leen waaye nag yàlla dafa bind lu baax teg fi bind bon teg fi ku ci nekk foo foo foo xirtalu jëm ci ci la lay dimbali sëñ Tuubaa li mu war a def def na ko bind na ba fi yar na ay nit ba nit ñi teg ci seen bët léegi nag nit ki moom mooy moom bu fekkee dafa bëgg a baax wala mu bëgg a bon mooy soit fa mu bëgg a jaar waaye nanga xam ne képp ko koo xam ne bàyyi na fi yoonu sëriñ Tuubaa wi jaar ci lu mu santaane wala lu mu diglewul nanga xam ne si sa yëfi bopp nga nekk ëllëgee lu la ca fekk nanga xam ne yaa ko teg sa bopp waaye lii la sëñ bi jàngale te mooy imaan ju mat sëkk islaam ju mat sëkk ihsaan bu mat sëkk mooy rafetal am li ñu tuddee makaarimul axlaax nit ki dafa war a am li ñu tuddee makaarimul axlaax ku la gis daal ni kii kuy sëriñam kii fu mu yaroo kii fan la bokk kii fan la jànge loolu lañuy ñuy nawe nit waaye coow lu bari wax ju bari nelaw yu bari lekk gu bari loolu amulut njariñ diine amulut njariñ lislaam Sëñ Tuubaa yërewut waa këram noonu yërewut ay taalibeem noonu kon nag na nga xam ne képp koo xam ne ndaw nga te nekk ci jamono ji war a jaar yoonu baax ni ko fu ñukk jaar ci yoon wa nga bëgg a jaar lu dul njàngaleem sëriñ Tuubaa mi na xam ne yaa yaa yaa sos yaa yaa sos sa yoonu bopp waaye sëñ bi diine la jàngale ju mat sëkk diini tawhidul ilahi wa nabi sama diine mooy wéetal yàlla ak yonenteem bi ci loolu rek ci la sëñ Tuubaa ma sa nekk kon ku koy roy ku nekk muy góor ngi jigéen ngi ab taalibe yaakaar ko muy saalihaat wala saalihiin yëpp dañoo war a tënku ci li sëñ Tuubaa doon jàngale fexe defar seen ruu fexe defar seen jëm ba ku leen gis xemmem leen mën a tàbbi ci yoon wi ngir seen jikko yu rafet te bàyyi wax ji bàyyi manifesté wu bi bàyyi xeex bi bàyyi xuloo bi te tegu ci yoon yoonu ma mustaqim ndax Sëñ Tuubaa non violence la la woote hmm. waaw maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm te xam ne yëf yi daa xaw a bette rek te waxtaan boo xam ne yoroo dara moom daa nga da ngay talax talaxee rek waaw talax talaxee rek kon nag jàmm yéen waa waa 24 actu ndax seen taxawaay moom ci diine ji ñëpp xam nañ ko rawatina yoonu sëñ Tuubaa wi rawatina waajtaayu màggal gi seen taxawaay ni ngeen ci taxawee taxawaay bu ama am solo la kon nag ñi ngi ñaan mu dem ba nekk ay télévision yu mag yoo xam ne àdduna bépp dañ koy xam di ko suivre ndax li am solo mooy qualité te te yéen a ngi ci bu baax yéen a ngi ci yéen a ngi def ay action yu am solo yéen a ngi dafay ay émission yu am solo fu ne ngeen fay dem di sonn di dugg di loxati actualité yi te loolu mooy lépp kon nag na ngeen xam ne nit ñaa ngi leen di bàyyi xel te ca kaw ca kanam rek bu ngeen bu ngeen bu ngeen ci jàppee rek da ngeen dem ba ñëpp dégg leen waaw